ñuy amalee napp gi fii ci réew Sénégal jëwriñ ju ñu dénk wàllum pêche ak infrastructure maritime et portuaire démb nag la daal di fësal ab liste boo xam ne rek ci la bateau yi war a fii ci waaxu Sénégal yépp nekk loolee nag war a toll ci dirub juróom benn fan ci weeru mai ba fanweeri fan benn ci weeru décembre atum 2024 Vox Populi feelu ko dellu soir ci accord de yi nga xam ne rek état bu Sénégal xaatim na ko ak bateau yi nga xam ne rek ñoo war a nappee ci waaxu Sénégal tollu nañ ci téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay bato nationaux fukk ak juróom-ñeent yi nag di ay bateau étranger list boobee nag bokkul benn yoon ak dossiers yi nga xam ne rek war nañ koo renouveler atum ren ji nangul nañu itam nag yu toll ci 17 449 pirogues yoo xam ne rek dañuy nappee fii ci suñuy waax 7 493 ñu daal leen koy jox ci ay permis de pêche fukk yaak juróom-ñett yi nag di ay embarcation étrangère le soleil yëglekaay dellu siwaat ci liste boobee nga xam ne rek ministère bi daal dina koy fësal ñeel bato yooyee nga xam ne rek dañuy nappee fii ci waaxu Sénégal ne juróom benn fan ci weeru mai lañ ko fas yéene tàmbali ba fanweeri fan ak benn ci weeru décembre Sud Quotidien ne secteur napp gi kay jamono ji nag pëccëxoo am na ca laas yëglekaay dellu siwaat ci publication liste bu doy waar bi nga xam ne rek tukkee na ci bato yi nga xam ne rek ñoom ñooy nappee fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne na bato yoo xam ne rek diirub ñeenti at mi ngi nii nag kenn gisatu leen te seenub tur nag bokk na ci liste bi nga xam ne moom la ñu fësal bato yoo ne rek yu réewu France la réewum Italie ak ay bato chinois ci jamono ji nag yéenekaay bi ne état bi daal li mu bëgg rek moo ñu daal di leeral anam gi nga xam ne rek noonee la ñuy amalee wàllum accord de pêche yi rawatina ni ñuy nappee ci waaxu Sénégal la ñuy xaar ñoom nappkat waxati nag bokk na ci état bu Sénégal mu daal di amal ay audit nag jëm ci accord de pêche yi ku ci mel ne Macoumba Dieye di njiital union nationale des pêcheurs yu artisanaux yu Sénégal moom nag ma ngay xam ne ni daal ginnaaw liste bi ñu fësal nag li ñu bëgg rek mooy état bu Sénégal mu daal di wàññi li mu bateau yi nga xam ne rek ñoo fiy nappe nanguwaat li nga xam ne rek moo di permis de pêche yi le temps moo yëglekaay xëy ji moom dellu siwaat ci publication rapport e bi ne Diomaye Faye civile bi askan wi ci seen bopp ñoom ñëpp ña ngay sàkku nag ñu daal di appliquer nag rapport yooyee nga xam ne rek moom la doon fësal ayu gi ñu weesu looloo waral nag ñoom ñooñee ña ngay woon nag état Sénégal ngir mu dem ba jeex ci yooyee rapport Alassane Seck di njiital LSDH di dellu siwaat ci lan moo waral nag état Sénégal war a am intérêt ngir dem ba jeex ci yooyee dossier Moundiaye Cissé bu ONG 3D nag ne jamono ji nag rapport yi daat nañ di a IGE ne li gën a am solo jamono ji nag moom mooy ñu daal di nag fexe ba dossier yi nag lépp daal di leer yoon daal di ciy def liggéeyam ndax lu ni mel nag càkkuteefu askan wi la Le Quotidien yëglekaay dellu soit tey ji nag ci chantier yu tàmbalee dooraat ndànk-ndànk nag ci corniche bi yéenekaay bi ne jomaay ma ngay teggi tànkam acteurs yi nga xam ne rek ñoom ñoo yëngu ci wàllum BTP démb dalal na leen moom président de la république ak premier ministre am l'info yëglekaay dellu soit ci diggéey ak li ñu taxawal ab loi amnistie Thierno Bocoum moom ma ngay teg pression ci kaw Bassirou Diomaye Diakhar Matar Faye moom Thierno Bocoum ma ngay xam ne ne nag ci ñaari conseil des ministres bi ñu doon amal nommé nañ fa ay directeurs généraux te amaluñu appel à candidature kon nag mën nañoo jàpp ne am na ab dige boo xam ne rek la ngeen ca waxoon defu ko moom Thierno Bocoum ma ma ngay xam ne ni daal xel mënta nangu ab ancien procureur de la république boo xam ne rek moo tegoon loxo ci yenn dossier yu of nag nag wéy di doon ki nga xam ne rek moo jiite nag di fa bind ab bataaxal kii di président de la république bu Sénégal ñeel li nga xam ne rek moom la ñu dippee reddition des comptes ma nga leen di woon nag ngir ñu daal di jëlee Serigne Bassirou Gueye ci bopp OFNAC te leeral nag lu jëm ci tuuma yi nga xam ne rek moom la di déclaration patrimoine leeral anam bi nga xam ne rek noonee la ñu génnee Karim Wade fii ci réew Sénégal yóbbu ko ca Qatar lu jëm nag ci coowal suuf gi nga xam ne rek moom la ñuy topp jamono ji nag Thierno Bocoum ma ngay sàkku bi nag bëree bëri xëy dellu si ci Ismaïla Madior Fall mi nga xam di koy affecté foofee ca IFAN yéenekaay yu bëree bëri ne persona non grata la jour ne waa SUDES jamono ji kay ñoom ñëpp jug taxaw ne duñu nangu benn yoon nag lu jëm ci affectation kii di Ismaïla Madior Fall ca IFAN tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ci wàllu Ligue des champions finale retour yi nag tey jii ci talaata ji yéenekaay yi nag daal di samp ab laaj ne PSG ndax mën naa renverser Dortmund li ci kanam raw li jeexale yi